aca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax amaat nañ kontaan ak mbégte bu baax a baax fas yéene dalaat beneen kilifa di kàngam nga xam ne nag ci biir sit bi kenn du ko fi présenté tey kooku la ñuy tuddee Cheikh Mouhamed Diop nga xam ne saa su nekk rek euh, mu ngi defal nit ñi tawféex ndax euh, jaam yàlla yi nga xam ne saa su nekk ñu ngi koy seede li leen di defal lu tawféex ci ñaan yi muy def dinañ fas yéene waxtaan ci ponk yu bëree bëri bëri dinañ ci yaatal rawatina li nga xam ne xewoon na ci biir réew mi te ñu ngi ciy topp ba léegi ak yu bëree bëri dinañ ci waxtaan tey incha allah Cheikh Mouhamed Diop bàyyil ma bàyyi la nga nuyoo mbokku askan bi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. <clears throat> baada auzu billahi min asseytaani rajim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala an ashaabi maulana rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wala illa billahi al aliyul azim cheikh ñu ngi lay fay nuyoo di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci bakkan yi nga xam ne rot na ci réew mi di leen di jaale mbooleem ummatu Sénégal yëpp. Mm-hmm. di ko jaal nation bi yëpp. Mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla na aljana doon seen dëkkuwaay. Mm-hmm. te yàlla fan jëm yàlla buñ fa fekk fitna te fuñ jugee tamit yàlla buñ fi bàyyi fitna. te yàlla na yàlla dee di seen noflaay ci barke yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di ko jaal Sénégal yëpp. jërëjëf euh, Cheikh Mouhamed Diop am na solo fi nga tambalee ci sa nuyoo am na solo tarkal la ñu nit ñu ngi koy jaalee ñëpp ñun waa personnel bu 221 people di koy masawu ñëpp. aja fi may tàmbalee nag euh, dama naan ban analyse ngay def ci li nga xam ne xewoon na fi jamono ji yëpp ci réew mi donte ñu ngi woon ci guddi goo xam ne bët setagut la ndax gis nañ fi ni mu mujj demee donte actuellement fi mu ne apaisement am na jàmm am na waaye teewut nit ñaa ngi am loo xam ne war nañ koo topp ba léegi ban analyse nga mën a indi foofu. waaw alhamdulilah beneen yoon. xew-xew yi fi xew xew na ñun ñëpp ñoo ko gisandoo. Mhm. ginnaaw bu mu amee nag ba pare ba yàlla def ci jàmm danaay wax ne képp ku ci waxati rek nañ ci wax loo xam ne dafay jur jàmm parce que jàmm gisul lu ko gën fii ñu nekk gisul ko gën fële ñu jëm. Mhm. comme jàmm am na nañ ñaan yàlla yàlla dooli jàmm goog ci barke yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa te ñaan tamit nit ñi nañ teg coowul politique fee. Mm-hmm. te xool lan mooy jëmale réew mi kanam. ñi ngi ci mbas nañ boroom xam-xam yépp lu ñu waroon a yittewoo mooy dajaloo suñ jugee ci mbas mii nan lañ war a def ba suñ économique jugaat dajaloo nan lañ war a def ba buñ jugee ci lii ñi am santé bu dëgër boo xam ne mbooleem doomu baadolo boo xam ne da nga feebar. Mm-hmm. di nga am hôpital boo xam ne danga fa mën a fajoo. war a fexe ba nga xam ne ki nga xam ne dafa nekk ci agriculture yëg na boppam moom ci réewam. Mhm. fexe ba nga xam ne ku nekk ci pes yëg boppam ci réewam. fexe ba nga xam ne ku nekk ci mbay mi yëg boppam ci réewam buñ ko defee rek réew mi dana naat te réew mi dana nekk ci jàmm. Mhm. te wàññi coowal politique. coowal politique suñ ko wàññee rek réew mi dana nekk ci jàmm te liggéey réew mi te teg réew mi ci yoon daal. di ñaan yàlla jàmm juñ am. Mhm. yàlla na ko yàlla saxal ci barkeek salaamun xawlan min rabbi rahim. parce que dañoo nekk ci weer woo xam ne dafa nekk weer wu tedd ba xam ne yéeféer yi luñ mosoon a bon bon bon am na ñeenti weer yoo xam ne duñ ci yee fitna duñ ci xeex ci weeru rajab bi ci la bokk rajab bañ na ba moom yàlla daf koo beer sax mi rajabul fard di weeru ngëneel bi nga xam ne ci la julli wàcc te dañu wax ne awalu maa yuhasibu yowmal qiyaamati as-salaa ida salaa salaaha kulluhum wa ida fasada fasada kulluhum mm-hmm. mooy lu ñuy njëkk examen nit bi yowmal xiyaamati mooy julli mhm. bu yéwénee lépp dana yéwén bu yàqu yëpp yàqu mhm. di weer wu tedd mhm. dinaa dégg sax ci sama mbokk sëriñ si nga dégg ku ne boo ci reyee naat bind ci wàqiya boole ko moom lekk ko dangay naat te loolu yaakaar naa ne buñ ko waxee tamit lool mooy yàlla dafa tële fekke yàlla weer yum bind yëpp benn weer rek ci ngi ci lekk naat pour mën a naat ci at moom yaakaar naa ne boobu yàlla ak tëleem dafay ñëw kanaa boobaa kon nit ñi daneen la xaaraan te doomu aadama ku ko xaaraan rek la bëgg yaakaar naa ne weer wi waroon nañ ci yee nit ñi xam ne julli moom la ci yàlla wàccee ñi xiirtal nit ñi ci julli weer wii màng ngeen ci nga oor ko moog saxbaan tegle ko ramadaan nga xiirtal nit ñi ci lool màng sopp nañ ko ci oor ñetti ñetti fan yu tegloo nga xiirtal nit ci lool moo gën ngay xiirtal ci nit ñi ku ci def lii da nga am lii naataange ku ko bëgg yàlla mënu koo may nit ci benn weer yàlla bisam yépp bis yu baax la kon nag xam-xam boo ko yoree war nga koo jëmale ci lu baax ak loo xam ne toujours bul ne lii boo ko defee lii am lii waxtu wu nekk yàlla bisam yi ay bisam la te bis bu nekk yàlla mën na cee may nit teraanga tarkal jërëjëf euh, Cheikh <coughs> Mouhamed Diop ak jërëjëf ci weeru teddoo mu di weeru rajab bi euh, nga xam ne saa su dellusee rek suñu xel dina jëm ci Touba rawatina Serigne Fallou Mbacke mi nga xam ne dañ ko ci màggal di anniversaire am ñun xel yëpp actuellement nii mu nga fa man sax sama xel fi mu nga fa mais donte jamono ji fi mu toll ak mbas mi moo ko gàllankoor yu bëri bëri dañ koy leb ba beneen yoon mais ñu ngi siyaar ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci biir réew mi rawatina sama mbokk yi nga xam ne ñu ngi biir Touba ñu ngi leen di siyaar bu baax ci weeru rajab bi acca fi ñu duggoon sànq balaa maa jàll nag dañoo seetlu ne bëri na kër yu bëri yoo xam ni lakk nañu ci biir kii bi mais man li ma gën a gën a gën a kii nag rafetlu wuñ ko di koy ñaawlu donte yàlla nag mooy dogal ñu ngi jaale ñëpp dellusiwaat ñi nga xam ne seen bakkan wadd na ci waaye kër yi ñu taal kër yi ñu taal doy na war de. waaw xam nga ak yàq moom. <clears throat> képp kii nit te doon nit ku nite waroo koo mën a rafetlu parce que barab yi nga yàq yépp say mag wala say njijaay wala say pàpp ñoo fay liggéey te tey jii ñoo ñëpp yóbbu nga leen semeur te xamoo xamoo ndax foofu lañ daan fàggoo fuñ fu ñuy fàggoo pour ñëw mën a joxe dépasse <laughs> yeneen barab ya nga yàq tamit ay sénégalais ñooy witt limon hmm. yóbbu fa jaay leen ko ñu jaayaat senegal yi hmm. wala senegal yi ñooy jël carotte yóbbu fa jaay leen ñu jaayaat sénégalais yi wala sénégalais gi moo yóbbu géej jaay leen fa ñu jaayaat sénégalais yi hmm, loolu nag boo ko yàqee da nga yàqal ñi nga xam ne noo doon jël di jaayaat noonu yàqal ba tey ñu fa daan liggéeyee yàq moom amul kenn ku ci mos a d'accord yàq moom duñ ci d'accord ba foofu parce que fa ngay yàq say mag ak say rakk ñoo fay liggéey mhm. kon nag waroo koo yàq boo ko yàqee sa bopp nga yàqal sa alal nga yàqal ba tey tamit nga gis maire boo xam ne dafa dajale trois mille jël ko def ci ab taabul taabul googu teg ci ay ndugg di ko jaay nga jëw jël euh, taabul boobu taal ko lakk ko mhm. maire boobu nañ lay mën a def ba amaat beneen trois mille wala beneen six mille boo xam ne dana ko fay ménagerie par mën a daaj taabalam mhm. parce que ko yóbbu woon nga ko mu anéeraat yàq moom wax dëgg yàlla képp ki nit te mm. nit yitte la rek yàquma boo ci d'accord jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Mouhamed Diop fa mu daal ne am na solo tarkal la acca damay ñëw ci sa mënin nag nga xam ne kenn waranteetu ko mu di seet bi ngay def fii ci biir réew mi ak bitim réew ñu bëri rafetlu nañ ko ndax yaa ngi ciy def preuve bu leer nañ ñu del siwaat yi waa alhamdulilah beneen yoon toujours dinaa la koy wax arab yi dañuy wax ne bëril tut dafay wari te dàngeek la ñu tudd ñun nag comme seet bi nga wax yàllaa ñu ko jagleel ñu man ko loolu te alquran dafa wax bu ngeen dugg ci kër na ngeen jaaree ci buntu mm-hmm. mooy tax nga mën a xam la nekk ca biir kër ga nit nag mënoo xam lu nekk ci biiram mukk lu dut mm-hmm. danga càmbar ay biram càmbar mm-hmm. mënoo ko am lu mooy ci seet nga ko mën a amee parce que par exemple nit ñëw na la damaa tëju rek damaa bëgg lu ma tijji nga jox ko lu ko tijji bu ko sangoo du gis dara. Mhm. parce que foog nga seet ba xam cause bi lan mooy cause bi wala lan mooy cause bi. Mhm. nit tamit foog nga seetal ko ba xam ay mbiram lan la lan la aajo fekkee dafa aajo sarax. Mhm. nga wax ko fekkee dafa aajo leneen lu war a sangoo nga def ko. ba tax na ñun seet yàlla may na nañu du may wax nag maa fi sut maa fi sut moom eh, kenn du ko wax waaye am nañ ci jagle goo xam ne yàlla may nañu ko te jagle googu ñun xam nañ ko ba xam ne képp koo xam ne dikkal nga ñu ci rek mhm. bëgg ci seet moom danga ko am moom te la ma lay wax li ngay tegal sa bët lay doon bu soobee yàlla acca damay ñëw ci li nga xam ne saa su nekk euh, comme yóbbante lay doon ndax gars yi moom euh, daa mel ni loo ci kii moom doyut mu di ubbeeku bi ngay def ak kaaraange bi boobu moom rawatina jamono yi ñu toll nag euh, kaaraange moom nit ñi soxla nañ ko ku ne war nga koo fàggandiku mu di ubbeeku ak kaaraange ñu ñëw ci ñaari ponk bi de ñëpp xam nañ ko. Mhm. mooy ubbeeku koo xam ne mën naa wax na raw say maas wala sut ci sa aw askan. Mhm. mi soo yeneen yoo xam ne moo ci topp. Mhm. dinaay wax ne képp kuñ ko liggéeyal ci at moom ubbeekoo ci bu la neexee mën ngaa ñëw nga poñe na waaw képp ku ma ko liggéeyal ci at moom la nga bëgg amoo ko ci. Mm-hmm. li ma la wax bu la neexee nga ñëw nga def ma ko. ba xam ne képp koo xam ne dikkee nga ni ci wàllu ubbeeku. Mm-hmm. buñ ci jëflante ak yow boo doon am benn jàppal ne téeméer ngay dalee jëm kaw. waaye dellu ginnaaw moom dootoo ko amat parce que na ñaar rek am mm-hmm. benn. nga dellu ci ginnaaw astafula taxaw benn place amul benn mhm. da ngay dem ci kanam wala nga dellu ci ginnaaw mhm. ba tax na ubbeeku moom bëri nañ ci xeet yoo xam ne ñu ko ci liggéey ku ñu ci dikkal daal li nga bëgg da nga ko am am maa kaaraange nag mhm. jamono ji moom danaay wax ne képp ku amul kaaraange yaa ci éeréel képp ku amul kaaraange yaa ci éeréel ci jamono yi ñu nekk kaaraange mooy tax nga mën a mucc parce que da ngay gis loo xam ne sa yoon nekku ci sax nga ñëw nga ñëw nga ñëw ci. gis loo xam ne sa yoon nekku ci nga ñëw jëlee ci sa. Mm-hmm. jëlee ci sa bakkan. gis loo xam ne sa yoon nekku ci nga ñëw jëlee ci ab tànk bu damm. te mm-hmm. yooyu yëpp lu koy waral mooy ñàkk kaaraange. dinaa wax ne jamono yi moom képp ko amul kaaraange moom na daw nga uti ko. <laughs> man nag sama kaaraange dinaay wax ne képp koo xam ne jox naa la ko. Mm-hmm. lépp loo xam ne loraange la liy jugee ci loxoy nit ñi. bis boo ko sangoo lépp lu la dal xamal na suñu borom la waaye loraange goo xam ne nit a koy ci nit ñëw dal gëj naa ci yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dootu la dalati. tarkalla bëgg ngeen kaaraange bu wër rek numéro Cheikh Mouhamed Diop mu ngi noonu di daw ci suufu baar d'écran bi jokkool ak moom waat ngeen dox ñëw doxantu fekk si ko fi nga xam ne mu ngi fii ci biir dagaar euh, mu defal euh, lu màcc ay ci ñaan yi muy def acca damay ñëw ci maanaam nit koo xam ne dafa tëju nan la mën a def ba ubbeeku. waaw xam nga tëju. Hmm. balaa am dana am lu ko waral. Ah. li def la ay liggéey yu bari ñi sëf ko ba mu diis. Hmm. waral làmmiñ ak cet bu bari dana waral ay tëju wala waxtu wu nekk sa mbir nit ñi di ko yëg dana waral ay tëju mhm. tëju nag dafa am umute am tëju mooy man ngaa am léegi waaye li ngay am du la doy mhm. umu nag mooy doo mën a am dara ñaar bépp bu ci manti doon am na mhm. loo xam ne bu ñu koy liggéey booy sangoo saafara bi da koy jaaree ci inde yu ñu toggee saafara bi dem foofu nga sangoo ko fekkee danga nga tëju woon rek bu soobee yàlla danga nga tijjeeku comme buntu fekkee da nga umu woon mm-hmm. danga nga ubbeeku comme ngelaw fii ngelaw li jaar ñëpp deneen xam ne fii ngelaw fi jaar amaa tamit ba tey da nga gis nit boo ko tey jii mu ñëw fayeku léegi tee benn un million mm-hmm. balaa dix minutes un million bi jëm ci loxo mooy ah, yàqu ci wàlli loxo mm-hmm. te dafa bëri jamono ji ñu bëri mën nee na tee alal ba war cee def dara dañu jékki-jékki rek gis na alal ji sa loolu ñeen ñi di wooy loxo bu na kon teme yu réet la ko daan mag ñi daan tuddee wala wudde tamit yuret wala wudde képp koo xam ne daf la dal mm. ñun boo ñëwee am na ci garab goo xam ne duñ tudd tur bi garab googu heure bu xobam waddee bu daanoo mm-hmm. benn ngelaw mënu ko ngelaw bu ko ëppee sax bu ñëwee dafay dafay dajalowaat ci ren bi mm-hmm. loolu nag képp koo xam ne daf laa dal loo am mu dem boo ñëwee ñun daneen ko dindee ci saafara boobu dafay ànd ak xobu garab boobu dootoo amati dara mu tasaaroo mm-hmm. lépp loo manti am dana des ci sa loxo yi te da ko mën a soppandikoo nu mu la neexee bu soobee yàlla. parce loolu dafa bëri jamono ji. jërëjëf euh, Cheikh Mouhamed Diop am na solo ci ponk yooyu ñu nekkoon mu ciy faram-fàccee lu leer nañ waaye atya damay dellusiwaat ci li nga xam ne saa su nekk nit ñaa ngi ci waxtaan ndax doon na loo xam ne euh, ci ñenn ñi sonal nit ñi mu dee lii nga xam ne rab ak mën naa ne cat rab ak cat ñu waxtaan. waaw rab moom dafay phénomène boo xam ne dafa doy waar. Mhm. danay xiirtal nit mu def lu bon ba pare du ko tey mu dem def nit lu bon ba pare du ko tey. Mhm. rab mën na la xirtal ba nga dem àgg ci jigéen boo xam ne jigéen bu ndaw la doo ko tey rab mën na la xirtal nga àgg ci jigéen boo xam ne danga nga ko rusonte doo ko tey da ngay gis na rab mën nga nekk ak sa jabar nga dugg ci biir duus masturbe sa bopp ba yëg bànneex mu lay gëñ nga jaxasoog sa jabar mhm. rab mën na la dal nga nekk ak sa jabar ba war a des dara du du des du du songoog moom dootoo man dara mhm. rab mën na téye sa alal di ko yàq rab mën na jékki-jékki di la merloo rab mën ngaa xëy war a liggéey nga xëy mel ni koo xam ne dañ laa daj ci lal bi mhm. sa yaram bi fasu doo mën a jug boo waree jug rab mën na dem ba ma jox la gàllaaj goo xam ne daf laa war a jariñ la ba gàllaaj bi doo ko mën a sangoo rab nag pour mu dañ ci moom da mën a xeex ak moom ñun nag du ma wax ne dañ koy calmer parce que am ñoo xam dañ lay jox mu calmer dem deux mois trois mois wala quatre mois wala un an mu ñëwaat ci yow. Mhm. ñun dañ koy dindi ci yow ba mu set wecc dañ koy dindi ci yow dañ luñ koy dindee nag. Mhm. du changer mooy cëw di gañ lay jox. Mhm. nga takk ko ak la ngay suuroo ak lan lay jox nga sangoo ko ak am na loo xam ne. booy tëdd da koy diw ci sa yaram bi. parce rab da gis ne. mën na la daal ci guddi gi nga gént di sëy ak jigéen boo xam ne danga ko ruus ñett yoon ci biir guddi gi mu lay daal. wala yow jigéen nga ëmb ba nekk ci benn weer wala ñaari weer rab bi ñëw sëy ak yow tuur ëmb boobu wala sa jëkkër jaaxasoo yow ba nga xam ne la nga xam ne moo war a sos doom mhm. rab bi soppi ko mu doon ndox ba nga xam ne bu duggee ndox lay doon doom dootu fa man a sosu yooyu yëpp nag dafa man dafa man a nekk waaye nag bépp bu mu ci manti doon dañ mhm. koy faj amaa cat nag yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ragaloon cat mhm. parce que lu sabab mu indi akaadu lazina kafaru mooy dafa am ci jamono yonent bi xeet woo xam ne dañ leen daan fay pour ñu ñëw tiim la di wax ci yow di la catu mm-hmm. loolu moo waral wa in jahadu lazina kafaru mm-hmm. cat nag di loon loo xam ne mën na détourner dundu doomu aadama mm-hmm. mën na ba nga xam ne dara dootoo ko a am mën na dem la nga génn oto fël te loolu yëpp làmmiñ daf ba la te bëgg bët dafa te daan wax ne ñaar a ragal sama xeet bi mooy dugal gëlëm ci biir kaw nga kawdir mooy cin mm-hmm. kawdir nu mu yem mm-hmm. làmmiñ mën koo cetu ba dugal ko ci biir moo lay wan loolu garaaw la ñun mm-hmm. nag bëri na yuñ ciy dindee am na ci ñett yoo xam ne siiw na am na ci boo xam ne dafay ànd ak socc boo xam ne dafa dugg ci gémmiñu nit ak ay lenset yami ànd ak am na boo xam ne ginaar lay doon da koy def am lu mu ànd ak nga sangu ko ci gën am na boo xam ne dañ koy liggéey ba tey tamit ci ay paaka yu bees fekkee cet la rek moo la jàpp tàggoog cat bu soobee yàlla. tarkala am na solo aja gars yi moom di dabu seen bànneex moo ñu fi teg ba tax na saa su nekk su ma waxtaanee moom lii bokk ci mbirum kayit dinaa ci delsi ñi nga xam ne ñu ngi koy sàkku muy tàggateem bi ci biir réew mi ak bitim réew dama ciy delsiwaat ak ni nga xam ne yaa ngi ciy jëflanteeg say client waaw kayit moom bu yàggu rek am na ku fi ñëw. Mhm. ci loolu lañ jëflante maag moom. defoon na fu war a mat sept ans ci lu ma wax mënta am kayit. bañ ci jëflante yàlla may na ko ci satisfaction ba la bëgg am na ko mhm. toujours ma wax ko du dama koy def ci buntu sant yàlla ba ma ko dalee jëflanteeg nit ba léegi yàlla musuma ca gàcceel te loolu nag da nga koy delloo suñ borom. Mhm. parce que jëf mu antu yàllaa ko man ñun jaam leen rek dañuy mhm. ñaan. jaam leen dañuy ñaan parce que mbir yi bu nekkoon suñ loxo yi da ñëw rek ñu jox la ko. waaye nag euh, lépp loo gis am na yoon. <laughs> yàlla danay wax ne sama jaam bi du dañ di ma dege jege ci ay nawaafil ak ay jëf yu baax dinaa dem ba nekk. ay loxoom ba nekk ay bëtam ba nekk ay làmmiñam ba nekk ay noppam yi muy déggee jaam nag bu tollee foofu yaakaar naa ne du wax boromam dara. Mhm. mu koy gàttal. Mhm. parce que yàlla amut doom amut dara xarit rek am. yonent bu gën a foor ci ñun amul dara ci yàlla lu du ñaan ko mu may ko te buntam xarit nag yàlla ubbil na ko ñëpp ku ko topp di ko jaamu rek bu yàggee nga doon xaritam. te nag yaakaar naa ne boo demee ba doon xaritam. Mhm. boo ko laajee li nga bëgg dana la ko jox. Mhm. jërëjëf ma ñëwaat ci sama xarit yi mu di sama mbokki jigéen ñi nga xam ne dañuy am tawat ndax tawat laa ko mën a wooye mu di jigéen joo xam ne dafa të am doom ak maanaam lii du borom kër da koy jafe ñaar yooyu ñu ñëw ci. waaw koo xam ne borom kër da laa jafe. Mhm. boo ñëwee ñu jëflante ci. li ma lay jox boo ko sangoo boo dàqul da nga am borom kër moom. kooku moom dama koy gàttal li ma lay jox nga sangoo ko. Mhm. boo dàqul da nga am borom kër parce que nit ñi nag mën ngaa ñëw ñu jox la nga dem. Mhm. ngay tàmm ah. te yaakaar naa nag yont la yont bi waxoon sallallahu alayhi wa mhm. waxoon bu ngeen gisee góor gërëm jikkoom gërëm diineem dem leen ngeen séer parce que jikko mooy tax mu mën laa yor yor bu baax waaw. diine mooy tax mu mën laa yërëm mhm. parce que ku amul jikko du mën a yërëm ku amul jikko du mën a yor yor bu baax ku amul diine du mën a yërëm mhm. nit mën naa am alal du am jikko ju baax du am diine daf lay tortiral mhm. te alal du sëy jikko ak yërmande mooy sëy parce que bañ na ba alquran bu sëy xasee ba am ñaar rek la ci tudd mawadda ak rahma cofeel ak yërmande rek moo fay des cofeel ak yërmande boo dàqwul daal buñ la ko joxee di nga am ci tout tànk ñu ñëw ci ci ci ci ci kaw nga nekk sa borom kër lañ lay jox mhm. lii da nga koy lekk yaag sa borom kër yii da koy naan nga jaxasoog sa borom kër bu soobee yàlla rek fekkee doom nga bëgg rek yàlla dana la ko may boo boo boo mosta am wala boo juróon ba taxaw tamit bu ñu la ko defalee da nga ko am incha allah tarkal nga ñu mën a àddulaat ci kiis bi nga daan def gaa yaa ngi koy laajte waa kiis bi moom mu ngi ba léegi mhm. kiis koo xam ne dafa naqadi xel koo xam ne dafa naqadi xel dinaa wax ne mbaam sax bu ko naanoon dina am xel te képp xam nga nit danay jàng ba ci yàgg mu fàtti mhm. nit mën na jàng ba mokkal mu ñëw taxaw ci kanam médecin médecin bi ne ko résitel mu fàttalam jàngoon mhm. yooyu yëpp daf koy am mhm. waaye nag bu soobee yàlla bu ñu la da loo doo dafay dugg sa xel ba dootoo ko fàtte ba ilaa yu mi din incha allah bu soobee yàlla jërëjëf aja euh, am na solo Cheikh euh, Mouhamed damay ñëw ci liñ naan samp nag donte duñ ne samp rek nit ñi dañuy foog ne mbër yi nga xam ne ñooy signé di am seen i combat at mu jot ñu samp leen ci juróomi at jëm kaw bokk na ci ñi nga xam ne dañuy soxla réew mi saa su nekk wala am na loo xam ne dañ koy xëccoo ñu ñëw ci samp nit. waaw samp danañ koy def nit ci wàlli alal. Ah. samp danañ koy def nit ci wàlli falte. samp danañ koy def nit ci wàlli xëccoo ay marché. samp danañ koy def ci lu bëri. Mhm. képp koo xam ne loolu nga bëgg boo ñëwee am na méthode boo xam ne ci wàlli alal la dañ la ci samp am na méthode boo xam ne ci wàlli fal am na méthode boo xam ne ci wàlli yeneen duñ ko yaatal daal waaye ku ko bëgg ba ñëw ba jëflante ak ñun rek bu soobee yàlla nit ñi danañ la seen comme si bi mhm. waaw comme si bi rek ngay mel tarkalla acca fi may jeexale tey bokk na ci jaaro bi jaaro bi nag dinaa ci delsi donte jaaro yu bëri nañ mais jaaro Cheikh Mouhamed Diop bi yaakaar naa ne am na wuute bu baax a baax différence ak jaaro yi ngeen di gis ñëw ci jaaro bi. waaw man de naa wax na sama jaaro képp ko takk wërsëg du la jafe. waaw képp ko takk. Mhm. wërsëg du la jafe. te doo fëgg benn buntu jafe-jafe am fa. waaw jërëjëf ñu bala nga tàggatoo. waaw tàggatoo rek di ñaan mhm. yàlla ci réew mi jàmm. Ah, amiin yàlla nañu ci yàlla may jàmm. képp koo xam ne da nga yenu fitna. Mhm. nar ko jëmee ci réew mii. yàlla nañu yàlla àtteeg yow. yàlla yàlla def jàmm ci réew mi. ndaw ñi yàlla na leen yàlla may xëy. amiin amiin amiin ndaw ñi yàlla na leen yàlla may xëy. ndaw ñi yàlla na leen yàlla may xëy. ba nga xam ne danañ mën a gis seen bopp ci réew mi. Mhm. wa ma zalika alallahi wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf.